الحمد لله الحمد لله الذي رفع راية التوحيد إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على إمام الموحدين وقائد المتوكلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا التاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فلما هجر التوحيد علما وتعلما وإرشادا وتزكيرا ضعف الإيمان وكثرة الشركيات ومن أبرزها وأودهها إتيان الصحرة والكهان وزيارة الدجالين وقد ابتلي الناس بكثير من الأخطاء الفادحة ومن ذلك ضعف التوكل على الله حين نزول البلاء والغفلة عن الدعاء وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتيان الصحراء فقال اجتنبوا سبع الموبقات قالوا وما هي يا رسول الله قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الحديث وقد قال سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أحمد وصححه الألباني وفي رواية لمسلم لم تقبل له صلاة أربعين يوما كيف وقد قال سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو mbokk jurit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala yàlla moom nga xam ne moo yëkkati drapeau wéetal ko muy tawxiid babaa bi su penc di taxaw du gërëm ay jaamam lu dul ne dañ ko wéetal subhanahu wa taala ñi ngi koy ñaan mu julli ci yonente boobu nga xam ne moo jiite woon képp kuy wéetal yàlla waaye mooy njiitu képp kuy wékku ci yàlla sunu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ak ñi koy nangoo roy ba ilaa yawmi diin ay yéen mbokk jullit yi sunu borom yàlla nee na amul benn xeet lu dul mas naa fa yónni yonent yonent bi li ma ko santoon mooy demal wax xeet bi nañ jaamu yàlla moytu lépp lu dul yàlla ñu koy jaamu leneen lu yonent ba wax ci julli leen koor leen aj leen nekkul lu dul doo leen mission principale boobu nga xam ne mooy lan mooy jaamu yàlla bañ koo bokkaale dara loolu rek moo taxoon yàlla bind nit ak jinne waaye mbokk jullit biñ demee ba nga xamee ni nii wéetal yàlla kenn jàngatu ko te wallahi xam-xam la bu ñuy jàng ni ñuy jàng médecine di ko jàng informatique wéetal yàlla kenn jàngatu ko wéetal yàlla ñu bari xamatuñ ko gisatuñu kenn kuy teete jëme ca gisatuñu kenn ku koy fàttali ngëm yàlla ya wëlbatiku na daa di lompañ lii di bokkaale daa di bari daa di tasaaroo bokk na la gën a màgg ci bokkaale yooyu tasaaroo tey mooy nit ñi ni ñuy riiree jëm ci njabarkat yi nit ñi riiree jëm ci gisaanekat yi ak ñi nga xam ne dañu naan xam nañ kumpa ak riir jëm ci ay nit ñoo xam ne dañ leen di woo ci turu yàlla te jëmeliwuñu leen lu dul fa nga xamee ne mooy mbëggalum borom bi subhanahu wa taala lan moo waral loolu mbokk réer gi nga xam ne wéetal yàlla réer na ko muy tawxid lu bari ci doomu aadama yi tey sunu borom natt naa leen natt boo xam ne nekk na bu jéggi dayo lool te mooy fàtte wégg seen mbir yàlla subhanahu wa taala heure boo xamee nattu yàlla ñëwal ci ñoom fàtte dellu ci yàlla ñaan ko heure boo xamee ni nii am nañ lu ñu yaakaar wala ñu am lu ñu ragal luñ ko weccoo mooy xamkat ya luñ ko weccoo mooy njabarkat ya njabar boobu nga xam ni sunu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ay waay moytu leen juróom-ñaari bakkaar yi day day alagaate juróom-ñaar yooyu bi ko yeneen ci bi alayhi salaam day lim lan la ca jëkke mooy bokkaale ak seen boroom waaye lan la ko ñaareele mooy la nga xam ne mooy ak njabar lan la ko ñetteele mooy rey nit fekk yaa ko tey mu lay won ne rey nit fekk yaa ko tey li muy bon bon njabar moo ko gën a bon lu waral loolu mooy njabar dafay rey comme ni rey amee waaye njabar day dofloo njabar day yàq diggante njabar day yàqu ak mbokk looloo tax suñu yeneen ci jiital ko avant muy wax li nga xam ne mooy rey nit mbokk julit njabar boobu nañu xam ne ak kéeféer la képp ku ko gëm dalay dugal ci kéeféer keroog bi yahud yu bon yi di wax ne yonent yàlla suleymaan ab njabar la woon sunu borom dane déedéet suleymaan musul nekk yéeféer seytaane ya kay ñoo doon ay yéeféer lu tax mooy ñoo doon jàngale njabar te seytaane yooyu du ñu jàngal kenn lu dul ñu ne ko bul weddi innama nahnu fitnatun fala takfur loolu yi mbokk nga xam ne sunu borom wax na ko ñu dem di ko jàng ci njabar bokk na lu ci sunu borom wax njabarkat yi daan fexe ba teqale diggante jëkkër ak jabar loolu muy wane ni la ñuy def leneen kenn xamul nu mën a toll waaye ki am kattan nit ki am soxnaam bëgg ko lool soxna si bëgg ko mu dépense ci alalam indi ko ci këram nga mën a def ay fexe ba dëkk mbaam xuux gënal ko dëkkal soxna soosu loolu day wane ne kon bokk lii lu garaaw garaaw la yonent bi alayhi salaam teg ci ne képp koo xam ne dangaa dem seeti ab gisaanekat seeti ab tënikat seeti képp koo xam ne dalay wax kumpa ku mel noonu day weddi nga li ñu wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lu waral loolu mbokk suñu borom dani moom dong moo yor caabi kumpa kenn xamu ko ku dul moom ah loolu la njàng ci alquran aalimul xaybi fala yuzhiru ala xaybihi ahad moom mooy mooy xam kumpa te du ko feeñal ci kenn xanaa ñun ay yeneen tam mu jàngal leen te da ko te neex wala ba ko ne indahu mafatihul xaybi laa yaalamuha illa hu loolu mu am nga attana dem ci benn waay kookee di la xamal sa avenir nan la nar a demee wala sa avenir u doom naka la nar a demee loolee mbokk weddi alquran la kii nga xam ne mooy imam muslim moom bi muy génn xadis ba lan la ca teg yonent bi alayhi salaam nee ne képp ku dem ci ak seetkat mu seetal la lan la seetal nga gëm ko ñeent fukki fan boo jullee yàlla du ko nangu xoolal jullit bi toog benn waxtu jullilu ko xoolal danger boobu la nga xam ne nag boo ko defee ñeent fukki fan yàlla du ko nangu loolu mbokk musiba mënul paase loolu bokk na loo xamee ne nii mbokk njabarkat yooyu tey dañ koy jëfandikoo am na ci ñuy dem bay làqatu ci gannaaw alquran ne ci alquran la ñuy seeti am na ci ñu bari ñoo xam ne dañuy ubbi ay centre naan dañuy mocci mocci alquran or que boo ñëwee ñu ne dañ lay seetal ba xam ni la jàpp rab la wala cet la wala kaza wa kaza mbokk yooyu yépp jéem a xam kumpa la képp koo xam ne dem nga ci moom mu laaj sa tur wala sa turu yaay ngam la waay xamal ne njabarkat la koo dem ci moom mu ne la jox ma sakaru sër wala patu dal wala daggal ma sa karaw dara xamal ne njabarkat la ku la jox loo xam ne dañ naan lii boo demee dañ koy taal di ko suuroo xamal ne njabarkat la képp koo xam ne jox na la ay xaatim yoo xam ne nii ay croix la ñu bind ci biir ay mbir xamal ne njabarkat la képp ku la reyloo diggante ginaar bay xar ba ci nag xamal ne kooku am njabarkat la ngalla waaye moytu leen leen seen kemteleen kattan njabarkat yu bon yooyu ñoo lay teqale ak say mbokk ñoo lay teqale ak say xarit moo dina wax la ci ñoom loo xame ne nii day yàqu seen diggante ba faw waxumaa nag diggante jigéen ak wujjam wala diggante nit ak collègue de service am loolee mbokk dañuy góorgóorlu bàyyi ko xel bu baax a baax loolu mooy danger ñuy def bokk na ci danger yooyee mooy buñ la seetile ba pare am benn béjjén buñ la jox ne ko da nga koy takk wala gàllaaj buñ la jox ne la lii dafa su sufroon la su ko defee yow sa xol da nga waroon a wékk ci yàlla subhanahu wa taala nga daal di koy wékk ci gàllaaj googu sa doom ja nga waroon a dénk sa borom subhanahu wa taala nga jàpp ne maadaama jabarkat gi jox na ma aw xaaw wu ma ko takkal na sama xel dal xaaw googu dana ko sàmm ba ni ngay gis jabarkat yu bari tey bu ñëwee ci kon dañuy xool xale yi bépp xale bu ñu gis nga takk xaaw wala takk téere ñu xam ne kii kat waa këram moom gëm nañ li nga xam ne mooy jabar googu mbokk julit bokk na loo xam ne sunu jeunesse bi xawoon nañ ci mucc demoon nañ ba gisaane yi ak jëndal yi xaw a nekk jeex ci société bi waaye biñ demee bay dund société alal lañu gis ni am na yeneen façon yu génnaat bokk na ci loolu mbokk lu ñuy tudde horoscope lan mooy horoscope moo di ne ne tubaab yi démb seytaane ko jàngale woon xatta avant yeneen ci di ñëw jàppale ne doomu aadama yi seen dund dafa nekk en contact ak biddiw yi loolu moo tax ba année bi ñu séddale ko am ñoo xam ne dañ ñii ñii ay bélier lañu ñii ay scorpion lañu ñii ay taureau lañu ñii ay balance lañu ay bu ko defee ñu daal di commencé yow mi juddu tey le 20 mars ba baa ki nga xam ne daa juddu le 20 avril bisu tey bii day seen mbir nangam ak i nangam ak i nangam la loo xam ne mbokk waxumaa ku am tawxid waaye ku am xel mu rafet sax doo ko nangu waxumaa ñu bokk fuñ juddoo mais ndax doo gis ñaari cheikh yu bokk benn biir bokk fuñ juddoo yàlla may kii wërsëg ke yàlla may ko wërsëg yàlla may kii sëy ke yàlla may ko mu sëy yàlla may kii doom ke yàlla may ko doom waaw te ñoo bokk benn biir bokk fu ñu yaroo kon naka nañ lay mën a waxal ne ñii bokk weer sangam ñoo bokk programme loolu waxumaa tawhid mais xel mënu ko nangu beneen danger bi gën a garaaw moo dina ne dañu yàlla nattoo ci rajo yi rajo communautaire bu nekk ab buxaaba ma nga fa bóof nekk ab seetkat seetkat boo xam ne nii lan ngay seeti mooy allo soo ne allo ci seen vocal yooyu nga xam ne six cent vingt huit kasa wa kasa mën nga dugal trois mille quatre mille cinq mille te dégg naa ñu koy laaj benn oustaz mu naan waaw affaire commercial waaye mbokk wallahi loolu riba la loolu naxaate la lekk alal yi nit ñi ci baatil la mooy ubbi benn serveur boo xam ne mille personnes mën nañu ñëw ñoom ñëpp nga leen wax ni ki defa ni ki defa ñu daal di verser seen xaalis quatre-vingt-dix pour cent ba du ñu dugg ku ko bëgg a daganal da ngay wax lu la neex su ko defee loolee bu xaaba ba toog boo nee allo baat bi di góor mu ne waa waa ji li taxaw sa mbir mooy nangam nangam nangam soxna si li taxaw sa mbir mooy nangam nangam nangam loolee mbokk nekk benn musiba boo xam ne tey mboolem rajo communautaire yi dañ koy rang ba baa ngay dégg ñu ne ñi ngi jéggalu ñu desoon ci la nga xam ne mooy sirbo bokkaar bi am na ci ñenn ñu ñu defal ay promotion am na ci koo xam ne su ma ji juumul ñu ne seen doon ndong la tudd donte ne aw yëpp dong nga jëkkoon ca ndogam nga nee nañu ne tey jii pour gis ko mu seetal la cinq mille francs ngay joxe te nit ñi dañ koy rang loolee mbokk jurit li ma leen di laaj waaw ki nga xam ne xam na kumpa ba ngay dem mu lay wax sa avenir pays mi baa ngi nii képp kuy njaboot di dem tariyaas ba ñu pays mi pays mi baa ngi nii ñu ne tey fas yi ku xam fas bi raw mën nañ laa fay des fois ba quatre-vingts millions jàppal Sénégal day yëngu foofu ba cent nangam millions jàppal Sénégal day yëngu foofu bu doon France wala Amérique ay milliards la fas yaa ngi nii suba la ñu nar a daw xam nañ kumpa am ñu teewoon ñu wax fas bi mooy raw des milliards yi bala ñu nekk fii di di yàq pas-pasu doomu aadama yi su ko defee mbokk jullit nañu ragal yàlla delloo su suñuy xel kumpa yàlla subhanahu wa taala moo ko xam te loolee du ko xamal kenn lu dul ak yonent bu muy jàngal nu ñu war a jaamoo yàlla gannaaw loolu mbokk jullit am na beneen natt bu ñu yàlla nattoo muy lu jëm ci wàllu gént noone ñu amee woon ña nga xamee ne ñooy xam kumpa am na it tey rajo yu bëri ubbi nañ fa serveur vocal yoo xam ne benn waay day ñëw boof ku nekk di ko téléphoné naan ko gént naa gis ganaar gi ke naan ko gént naa yéeg fii kasa wa kasa loolee lu ko neex mu wax ko ca loolu ay yow mbokk di leen kaay ma wax la lan la la sa yonente alayhi salaam waxoon ci gént gént mun ta passé ñetti gént benn gént bi mooy loo xam ne mi ngi jóge ci imma la dul xalaat wala sa yaram bu tàng wala xatta yow mi farante ay lumière ak sa feebaru yaram mooy xam ne gént yoo xam ne alxaasu axlaam amul leen lu muy firi mu am beneen gént boo xam ne ci cheytaane la jóge sunu borom mu ne innama najwa min alcheytaan li yaxzuna alladina amanu lii nga xam ne mooy jéeyoo ci cheytaane la jóge ngir bëgg jullit ñi am lu leen naqari noonu dala cheytaane di feeñu sa gént di la wan yu garaaw mën na laa wan nga accidenté dee mën na laa wan sa mbokk bu la jege dee man na laa won sax koo xam ne dafa nekk àllaaxira sa bàyyi wala sa soxna ñu koy mbugal mbokk na nga xamee ne yooyu yépp ci seetaan la jóge amul benn gént booy gént nga yow am lu la naqari loo dul ci seetaan la jóge su boobaa ana lan mooy pexe lii pexe yonent bi alayhi salaam nee na ëffal sa côté càmmoñ ñetti yoon nga ne yàlla maa ngi muslu ci seetaan di muslu ci ay li nga xam ne moom laa gis aouzu billahi min alcheytan wa min charri ma raaytu moo di ne ay yàlla yàlla na ma musal ci cheytan musal ma ci ay li ma gis bu doon da ngaa tëdde ndeyjoor nga wëlbatiku tëdde càmmooñ bu la fekkoon tëdde càmmooñ nga wëlbatiku tëdde ndeyjoor te boo yeewoo bu ko nettali kenn boo yeewoo bu ko nettali kenn yonent bi alayhi salaam nee na gént day mi ngi nekk taa'ir ci kaw doomu aadama bi heure boo demee ñu firil la ko rek mën na daanu sa kaw mbokk beneen gént bi gën bi bu baax bi mooy la yonent bi alayhi salaam ne woon lam yabqa min an-nubuwwati illa al-mubashirat qaalu wa man mubashirat ya rasulullah qaala ru'ya saaliha yonent bi alayhi salaam ne ak yonent jeex na yàlla dootu yónni keneen mbokk Sénégal ak Soudan fu mu mën a doon képp ku ñëw ne yàlla moo ko yónni gannaaw yonent yàlla bi wallahi day fen yonent bi ne woon na fanweeri fenkat daan ñëw sama gannaaw dajjaaluuna salaasu ku nekk ci ñoom day jàpp yàllaa ko yónni wallaay dañuy fen laa nabiya baadi yàlla dootu yónni keneen sama gannaaw yeneen dootu am lan mooy am mooy dana am ay gént yu baax ay bégalaate saxaaba yi ne ko lan mooy bégalaate yàlla yow mi yàlla yónni mu ne mooy nga géntal sa bopp gént bu rafet gént nga di julli gént nga toog ak yu baax gént nga ñu la yéegal asamaan loolu gént yu rafet la wala nga géntal ko sa mbokk julit loolu moom su amee xoolal ña nga bëgg nga nettali leen ko xoolal ña nga bëgg nga nettali leen ko nga sant yàlla te ñaan yàlla loole mu def ko yiw ñella àdduna ak alaxira mbokk lii la ñu yeneen ci bi alayhi salaam jàngaloon ci mbo ci loolu amma la nga xamee ni nii mooy dem ci benn waay waa joojee fay ko xaalis pour mu wax la ne la benn gént gi lii la léegi nag soo ko bëggee wëlbati da ngay joxe nangam joxe nangam mbir la boo xamee ni nii shayatin yi ñoo ko jàngalee yal na yàlla subhanahu wa taala delloo ñu ila siratil mustaqim dëgëral sunu pas-pas dëppale ko na ko yàlla gërëme mooy ci loolu lépp loo xam ne ay njabar laak ak i gisaane wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله الدنيا دار ابتلاء وامتحان تجري علينا مقادر الله عز وجل من أمراض وغموم ومصائب وأحزان قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وهذه الأقدار إذا نزلت بالمرء والصبر واحتسب فإن له الأجر العظيم فقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه رواه البخاري وما أصابه من مرض أو ابتلاء فليترك جادة الأدوية المشروعة أي من أصابه مرض أو ابتلاء فليترك جادة الأدوية المشروعة فإن الله ما أنزل من داع إلا أنزل له دواء ومن أهم الأدوية وأعظمها نفعا الدعاء قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه عني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi yee salaat sant sunu boroom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu indi ci àdduna ji nekk daaru nekk kërum nattukaay koo xamee ni nii sunu boroom mooy dogal ci ñun la ko neex ku ko neex feebaral ku ko neex teg la ay tiis ku ko neex wàcc ci moom ay musiba loolee moom la ñuy digoon ca lum diga dana ko def mooy yéen jiru ji nar a dëkk àjjana sunu boroom nee na danaa leen nattoo lenn ci ay tiitaange lenn ci ay xiif dinaa leen nattoo wàññi seeni alal dinaa leen nattoo wàññi seeni bakkan waaye béggalal ma muñkat yi ñooñu nga xam ne bu nattu amee dañuy dellu yëg ne ñun ay jaami yàlla lañu te ci yàlla la ñuy dellu sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ñu mel nii day dinaa leen gërëm ñu mel nii day dinaa leen yërëm te ñii rek ñooy ñu jub ah kon ñi ci des mooy ñam mooy ñu sànku ñam mooy képp koo xam ne bi nattu ñëwee sa xol bii jël nga wékku ko ci keneen ku dul yàlla jalla wa ala jàpp ne kooke mën na ko teggi wallahi bokk nga ci ñi nga xam ne dañoo réer ay yéen mbokk julit xamal ne nattu heure boo dalee ci doomu aadama benn mën na teggeeku mën na ñàkk a teggeeku yàlla jël na say bët jël na sa loxo jël na sa doom loolu yi moom da ngay gis ne dem na jeex na waaye na doon teggeeku na wala teggeekuwul yow julit lu la mën a dal dal caa war a muñ ñaan yàlla fay la ca loolee yonent bi alayhi salaam ne amul benn jurit boo xam ne coono dana ko dal wala feebar dal ko wala tiis dal ko wala njàqare dal ko même bu doon dox ci mbedd mi sax benn dég jëm ko lu dul ne loolu day sar ay bakkaaram day yëkkati ay darajaam loolee mbokk jurit dañuy gis ne ay yow jurit bi nga xam ne lor dala dal masalan da ngaa feebar demal nga fëgg bunt yi yàlla ubbi ca la nga xam ne mooy faju bu dagan sunu borom subhanahu wa taala amul benn feebar bu mu wàccee lu dul wàccee la la nga xamee ne moo koy faj loolee dañuy gis ne sida la cancer la lu mu mën a doon dañ naan gisaguñu lu koy faj mais yàlla du wàcce feebar lu dul wàcce na la koy faj loolee bokk na ca faj yooyu yu bari ay façon la waaye ba ca gën a màgg mbokk mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala loolu mooy faj bi gën a màgg ci faj yu nit yeneen ci moom lañ daan jikke bala ñoo def leneen lu dul loolu xoolal sunu borom lim ñu wax ci ayuba alayhi salaam ayuba mi nga xam ne yàlla tegoon na ko benn feebaru dermatologie bu metti lool ba jéggi dayoo feebar ba ba mu demee sunu borom nee na daf maa woo daal di ne ma ay yàlla suma borom lor day dal na ma ci yow yaa ëpp ñëpp yërmaane borom bi nee na dama koo wuyu daal di koy dindil la nga xam ne mooy feebar ba nekkoon ci moom xam nañ ne feebar moom ñàkk ànd ku feebar toog benn place mënatuloo liggéey alal jom ñàkkoon yëpp suñu borom mu ne ma delloo ko ko lii nag lan naa ko def wa zikra lil abidin des naa ko fàttali ñeel ñi may jaamu ay lépp loo xam ne dal na la sa loxo la sa bët la si mburu la lu mu mën a doon ngal la waaye bala ngaa riir jëm ca aspin bala ngaa riir jëm ci hôpitaux ya bala ngaa riir jëm fenn jëkkal tàllal sa loxo sa boroom ngiree borom bi faj la nga la way xamal ne amul kenn ku mën a faj ku dul yàlla demal ci hôpitaux yi gën a màgg ci kaw suuf boo demee dañ naan na morgue baa nga nee kon am na ñu fay dugg di wér waaye am na ñu fay dugg di dee yàlla rek mooy ki nga xam ne mooy ki faj loolee kon ñuy dellu ni ñaan yàlla lii nga xam ne mooy Zakariya xoolal bi ko yàlla nattoo soxnaam si amul doom moom amul doom na am julit terewul na nga faju ci dama seeti koo yaakaar waaye na doon bunt ba ngay jëkk fëkk mooy sa bunt boroom sa bunt boroom bi nga xamee ni nii moom bu médecin ya lottee moom kattanam du lot moom bu garab ya jeexee kattanam du jeex loolee ñu ngi ciy fàttali benn xale bu benn ku jigéen ku romboon benn silmaxa ci tali bi daal di koy jéggi mu ne ko yal na yàlla barkeelal la suñ njaboot mu ne ko ah man day góor gi suy naan yàgg oo ma njaboot clinique yëpp dem naa ko mu ne ko baa fàtte woo sa clinique ak borom foo jullee ñaanal yàlla teguñu ci ay weer ndaw si daal di ëmb loolee mbokk kon nañu góor góor la xam ne faj gi jiitu ci faj gi mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne borom bi subhanahu wa taala waxloo ne ko ne neel man day qul laa amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha allah walaw kuntu alamu alxayba lastaksartu min alxayri wa ma masani yasu ey yéen mbooloo mi man yonent yàlla muhammad mii gën ci bi doomu aadama yi mbooloo seen man day mënumaa indil sama bopp lor mënumaa indil sama bopp njëriñ médecin bi mënul ko indil kenn mënul ko indil xanaa lu dul lu neex yàlla mu ne man day su ma xamoon kumpa danaa bari aw yiw ca benn lor du ma laal yonent bi danaan feebar njabootam di feebar danaan am ay problème njabootam di am ay problème looloo tax mu ñu daan jàngal ne képp ci yéen koo am mbokkam bu feebar bu ko seetee nga la waay bu demee na fa wax juróom-ñaari yoon maa ngi ñaan yàlla mu màgg mi borom arash bu màgg bi mu daal di lay saafara asalullah alazim rabbal arshil azim an yashfiaka maa ngi ñaan yàlla mu màgg mi borom arash màgg bi ci mu saafara la loolee mbokk buñ ci pare it nañu góor góorlu xam ne ñu bari ñuy dem ci tariyaax yi dañ naan man day demuma pour dara waaye ay musluwaay laay bëgg moo ndax diri da ngaa xeeb al muawisat qul huwa allahu ahad qul uzra bil falaq qul uzra bin nas yonent bi salallahu alayhi wa sallam day lii la joxoon gàllaa gi julit mooy foo jullee ba pare jàngal qul huwa allahu ahad qul uzra bil falaq qul uzra bin nas soo mënee bu dee fajara jàng ko ñetti yoon bu dee timis jàng ko ñetti yoon wallahi moo gënoon nga commencé sa bopp ba sa tànk ci ay ndomb ak i béjjën dalay lor te du la jëriñ lii moom la ñu yonente bi alayhi salaam joxoon yonente bi alayhi salaatu wassalaam njabootam musuleen a takkal ay téere daana jàpp ca bopp ñaari sëtam ya xasan ak usaynu di wax naan uizukuma bi kalimatillahi tammatin min kulli cheytanin wa hammatin wa min kulli anin lamma maa ngi leen di làq ci gannaaw kàddu yàlla yu mate yi matale yi ci bépp seytaane yi ak lépp lu ànd ak dangar ak bépp bët boo xam ne nii day nekk bët buy lor loolee mbokk boo ko mënul ni ngay jàngale sa bopp qul huwa allahu ahad qul uzu bil falaq qul uzu bin nas nga la waay sa doom bu yaramam tàngee ak bu yaramam tàngul yëpp dee ko ñaanal jàngal qul huwa allahu ahad xulóodul fala xulóodul non say loxo raay sa bopp doom ñaan yàlla subhanahu wa taala mu sàmmal la ko nga bañ koo bàyyee ak tariyax yi lii mbokk dañuy gis ne mooy li am beneen mbir bi mooy doomu aadama dafay nekk toujours ci am looy ragal ragal nga ñu dàq ma ragal nga ñu fase ma ragal nga ila axiri loolee mbokk ci yàlla jàll wa ala ngay wékk ci loolu su ko defee beneen bi mooy nga ra nga am loo yaakaar ci examen bi ci tukki bi ci lu mu mën a doon kooku it yàlla nga ko war a yaakaar waa léegi nag ma dem ci benn waay ne dama koy fay mu ñaanal ma yàlla xanaa kay dama koy fay mu force yàlla jox ma mais maadaama day ñaan rek pour koo ñu koy fay loolee kon mbokk xel munu ko nangu su ko defee yow mi nga xam ne yaay jaamu yàlla bi bala yàllay bind tàgguwul kenn lim la may tàgguwu ci kenn pourquoi ngay bàyyi keneen dina ñaanal yàlla xanaa déggoo sa borom wax yonente bi alayhi salaam wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu dawata daa ida daa ay yow yonente bi samay jaam bu ñu ma lay laaj ne leen man dama leen a jege lool maa ngi pare di wuyu aju woote heure boo xam ne woona ma ko su ko defee ngal lan ñu góorgóorlu sunu kemtalaay kattan delloo sunu bopp sunu borom jalla wa ala xam ne bañ a doxale kenn sunu diggante ak moom la nga xamee ni it moom la ñuy mujjee te mooy la ëpp tey li tax nit ñi dem ci tariyaax yi ak ci seetkat yi mooy mbir yoo xam ne da ngaa xamul loo cay def ay mbir yooyu bëgg a dugg jaaxle ci tukki la sëy la examen la ñu bari dañ naan dañuy dem ñu istixaaral leen mbokk istixaara boobu mi ngi jóge ci sunna jaabir ibn abdullah nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day mi ngi wax ne daf ñu daan jàngal istixaara comme ni ñuy jàngale saaru alquran nga la waay déglu leen bu baax yéen góor ak jigéen yeneen ci bi alayhi salaam ne kenn ci yéen bu dee am na mbir moo xam ne mi ngi ci kanamam nga la waay na julli ñaari rakka daa di ñaan yàlla subhanahu wa taala ni ay yàlla maa ngi lay tànn loo ci sa xam-xam bi di la dogal loo ci sa kattan gi di la ñaan ci say ngëneel ndax yow rek yaa man man manuma yow rek yaa xam man xamuma yàlla mbir bii ma bëgg a dugg mooy kii di ma ñaan si daba wala soxna si ma bëgg a takk wala tukki bi ma bëgg a dem wala kër gii ma bëgg a tuxu wala kaza wa kaza yàlla day lii bu dee gën na ci sama diine déglul bu baax bu dee gën na sama diine mooy julit lépp lu muy dugg day xool ana fan la ca diineem toll yàlla lii bu dee gën na sama diini gën ci sama dund nga la waay yàlla yàlla nag ma ko dogalal yombalal ma ko barkeelal ma ko amma yàlla bu dee lii may jublu gënul sama diini gënul ci sama dund yàlla nag ma ko dàqal génn ci sama xol te dogalal ma aw yiw fu mu mën a nekk nga gërëmloo ma ko mbokk lii aajowul joxe dara aajowul paas aajowul dem di tëjoo kenn di ko wax say secret mooy directement sa diggante la ak sa borom jàll waala bokk na ci it loo xam ne nii day tax yàlla subhanahu wa taala nangu say ñaan mooy nga baril di génne ay sarax pas saraxu tariyaaf demal sarax imaam ñetti sondeel ak ñaari kayit loolee mbokk amul benn njëriñ waaye sarax ba nga xamee ne moo mën a fat aji feebar sarax ba nga xam ne moo mën a dàq balaa sarax ba nga xam ne moo mën a ubbi lu lu tëju woon mooy nga xool loo xam ne bëgg nga ko na doon ceeb la na doon sukkar la na doon yére la na doon xattaa la gën mooy xaalis bi nga xam ne ñëpp bëgg nañ ko nga xool benn miskin nga sarax ko ko ey yow mi nga xam ne da nga naroon dem ci tariyaax bi daal di ko jox cinq mille francs ngir mu ñaanal la xoolal tey miskin boo joxoon cinq mille francs mu ñaanal la ana ban ñaan lañ gën a yaakaar mooy gën a nangu su ko defee mbokk jurit ñi ngi ñaan sunu borom yàlla subhanahu wa taala delloo waat ñu ci pas-pasu lislaam bu sell wallahi mbokk ak lu ñu mën a sonn sonn bis day mujj ñëw ñu bàyyi fi àdduna yépp dem wuyu suñu borom xam nga lan mooy mbir bi fexe ba yóbbaale ngërëmal yàlla am naa problème àdduna loolee nekkul problème yuy jeex bu bii tëjoo yi beneen day ubbeeku bu dara tax ngay bokkaale ak sa borom bu dara tax nga nga yàq li nga xam ne mooy sa diine jéentee sax jéente saxal say njaboot ñi ngi ñaan yal na yàlla jàppale ñu ci loolu ñu xamit ne mbokk julee tey jii sunu borom yàlla indi nañu ci natt yu ñu doon wax benn góor buñ doon jullee loolu fii ñu koy wax góor gi moor kan dafa gaañoo tey ci suba mi ngi noonu ci jàkk ji lañ fi indi woon sànq sax ak neexoon ñu bàyyi ko fi mbooloo bi jullee ko ak juma la mujjee ñëw fii lu jege ñaari si kat ñu ngi jullee ñun donte ne yóbbu nañ ko ngeen boole ko seen ñaan yal na yàlla jéggal ko yërëm ko defal ko àjjana muy nekk wàccuwaayam ñu ne yal na yàlla jéggal ñu yërëm ñu may ñu mujj gu rafet defal ñu àjjana muy sunu wàccuwaay yal na yàlla laabal sunu réew ci lépp shirk yal na ko laabal ci njabarkat yi xamkat yi yal na ko soppee tawxid bu sell ak dëppoog sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla jëbal suñu ndaw mi delloo leen ila suratul mustaqim yal na yàlla defal ñu aafiya fi dunya wal axira yal na yàlla defal ñun ñépp àjjanay firdaws bi suñu dajawaay subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk